leen di nuyu dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce àllarba lañ koy ànd ak yéen waxtu bi mu nekk émission boo xam ni en direct la leen ko télévision Futur Média jagleel xam ngeen nag daan na teel a commencé waaye ku ne xam na ni euh, jamono ji jël ñu nekk ci jamono yi màggal nekk ci jamono safar nga xam ne nag tey ji euh, mën nañu ne. Euh, lu yëngu rek li ko yëngal moo ko ëpp doole euh, suñu correspondant yëpp ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu naataango yi daanaka ña nga ca dëkk bu tedd ba euh, di waajal ñeenti fan ci septembre muy bis bu am solo ci lislaam waaye di bis bu am solo itam ci yoonu murit Sénégal di ko waajal loolu nag moo tax ba programme télévision Futur Média nga xam ni mooy seetu Sénégal ànd ak yéen te yaakaar naa ni li ngeen gis li olof di wax rek la teeñ bi la yan bi dikkagul euh, ci lépp loo xam ni fas yéene nañ ko ànd ak yéen euh, ci màggal gi jàpp ni dara du leen ci ump faram fàcce nag tey mbokk yi ànd ak yéen euh, ak gan gu ñuy wax maître Moussa Diop maître mussa Diop avocat jiite woon na fi société bi nga xam ni moo aju ci dem ak dikk bi ñu koy wax dem dikk moom maître Moussa Diop moom la ñuy recevoir mu jiite coalition ànd gor ñi tey mooy suñu gan ci seen émission faram fàcce maître maa ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay fay di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu waa TFM di xam ne sama kër laa dellu si tey. di di bég ci jàkkaarloo bi nga xam ni am naa ko tey ak yow mais également avec les Sénégalais. tout à fait ci problème d'actualité yi ci vision yi ci programme yi parce que comme ni ko ni ko ñu bëri xamee euh, je suis candidat à la présidentielle bu février 2024. Mhm. donc di ñaan également. màggal bi di ñëw ñu demee ci jàmm dugg ceeg jàmm dellu seeg jàmm surtout affaire transport beeg tout ceci di ñaan jàmm également ci Sénégal merci alors bi ñu waxoon nga présenté ñu coalition bi nan nga ñu koy présenté ànd gor ñi ànd gor yi lu ko jógal mooy dañoo commencé politique bu yàgg nekkoon des indignés de la politique parce que ni ñu ko gisee woon ñu ko doon doxee ànduñu ci woon moo taxoon ñu ber suñu daara ñi mën a ànd ànd parce que avant gisoon nañu euh, jaxasoo bi yenn parti ñenn ñoo ko moom ça se voit dans les pratiques démocratie nag bu amul ci biir kër gi mënul nekk ci mbedd bi à l'intérieur des partis ñu créé ko en 2009 tuddee ko AG jot na mooy alternative générationnelle mais loo gis dafa war a adapté wu par rapport aux réalités Euh, moo tax ñu dem ministère de l'intérieur adapté waat ko tuddee ko toujours à mais ànd gor yi compte tenu aussi de lu xew ci réew mi. Euh, Gorée muy âgé ba tey quoi. ba tey âgé la mais Gorée <laughs> mhm. moo difficile ci réew mi. moo difficile ci réew moo tax la politique politicienne comme que ñun xamuñu ko ñi ma àndal nous avons considéré que il était temps ñu adapté ko ñu adapté ko tuddee ko ànd gor yi. d'accord ànd yi nag moom euh, daañu gën a xam lan la bëgg a proposé. d'accord wax nga ma ànd gor yi li ko tax a jóg ñi ko seq laa bëgg a xam. alors ñu ko seq. Euh, ay mouvement ñu ñu wax ni nag ñu ngi wax d'une coalition. non coalition la ñuy wax. vous savez coalition ànd gor ñi. ñi ngi jëm. waaw ñi ngi jëm gis nga le le 26 bi samedi samedi bi ñi ngi préparé woon une déclaration importante pour wane ñëpp ñu ci nekk waxtaan euh, parce que waxtaan bi dafa def tuuti ci yenn point parce que loo gis rek affaire góor di nga koy diisoo du ñëw rek jël décider ne nii la fekk yow pare nga bu yàgg mais il est normal que looy teg également ñu amandé ko complété ko euh, defaraat ko ba mu gën a jekk loolu moo tax euh, ñu repousser date 26 bi samedi bi de quelques jours donc euh, incha allah rabi dans quelques jours di ngeen xam ñëpp ñu ci bokk incha allah. les maître, mouvements maître, politiques maître, les partis politiques. mais également les personnalités indépendantes. d'accord d'ici le 26 mais minimum di nga am loo ñu ci wax. c'est-à-dire tey mënoo ñu wax que le nga ko waroon def déclaration bi reporté nga ko ba jëmmi jamono waxoo ñu une date précise li ma bëgg nga baal ma rek s'il vous plaît mooy vraiment coalition bu toll noonu nga jiite ko man bëgg naa nga wax ma ñan ñoo ko seq. au moins nga wax ma ci ñenn. ci euh, parti politique ci mouvement ci syndicat ci leneen ak leneen ñu mën a lu mën a lu ñu mën a jàpp. li nga ci li nga bëgg c'est une chose. li ñi ko séq bëgg décider ne ni ñu ko xaar ba quelque chose pour officialiser les choses c'est autre chose te man su ma jiitee tamit comme maa ngi doon wax léegi démocratie à l'intérieur mooy liñ fa liñ fa décidé ñu respecté ko ñu respectante aussi. man je respecte si maître maître aussi sénégalais ñu ngi lay seetaan xoolal question bi ni nga amee problème pour indi ci ay leeral. xoolal non non pour non c'est vrai c'est-à-dire li ñu la laaj maître xoolal ni nga amee problème rek pour indi ci indi ci ay leeral vraiment. les sénégalais yi ñuy déglu xam nañu y' a pas de problème. c'est moi qui décide non non non man. maître ma ne mandataire la dans un groupe. ñu décider ñan ñoo seq coalition bi wax ma ñaar ñett sax après li ci des fukk yi ci des nga bàyyi ko ba beneen yoon. yow li nga bëgg c'est une chose ñin ñu ko seq moom ko c'est autre chose d'ici quelque jours le 26 c'est samedi di nga ko reprise de quelques jours di nga ko fekkee du yaa ngi ne journaliste nga di nga ñëw vous serez invité j'invite tout le dafay est-ce que doo li nga def nii du dëggal ñi jàpp ni parti bi coalition bi yow kese la est-ce que du jox dëgg du jox dëgg ñi jàpp ni parti bi ca ca ca alternative générationnelle mm-hmm. ba ci ànd gor ñi mm-hmm. mais maître Moussa Diop dong la est-ce que du jox dëgg ñooñ parce que bu fekkente ni jox nañ la occasion pour nga présenter ñu euh, coalition bi boobaak léegi nga am problème mu présenter ñu ko mais est-ce que du dëggal loolu Pape xam naa sa méthode. mais man non non non non non da nga wax da nga may may ma déglu parce que bëgguma ñun tey sant fii quoi. parce que non non non non xam nga ni loolu du am yow itam man je suis invité. waaw poser ces questions c'est moi qui réponds. waaw soo bëggee ñu déglu ci émission bi. li nga bëgg nga laaj lii coalition bi nit ñi bëgg loolu lay respecté fii duñ ma ne officialisation c'est telle date bu ñu génnee benn information yow nga ñëw ma génn ba nekk sur ton plateau pour faire du buzz je ne le ferai pas mu leer. donc c'est pas question d'avoir un problème pour génne benn information c'est de respecter l'information voilà. d'accord mais maître mais laajaat bi damay ciy dellu parce que est-ce que jàppaloo mu jox dëgg ñi nga xam ni vraiment dañu dañu lay dañu lay dañu jàpp ni vraiment. Euh, en solo ngay demee amul euh, animation ci parti bi amu ko ci euh, ci coalition bi est-ce que du du ñooñu nga jàkkaar lool te vraiment ñu xeeb la euh, ce poids politique est-ce que doo leen jox dëgg mën nañ ma xeeb gis nga am na koo xam duma ko nommé nee na boo nekkee ci dëgg di nga wét te bu ragal wét. est-ce que du Youssou Ndour. non de je je ne pas. moom sax wax na ko. Mhm. pour dire clair. Mhm. mais c'est une c'est un jargon boo xam ne li nga koy wax au Sénégal c'est c'est la réalité. d'accord bu fekkee da nga considérer mbaboor bi. Mhm. la quantité vaut plus que la qualité. kooku sa sa sa sa vision la mais lu gën a leer mooy man xam naa Sénégalais yi fi ñu ma teg ak lañ la ñu xalaat ci lu am solo mooy aujourd'hui lan la ñuy indil Sénégalais yi te fu ñu jëm te n'oublions pas Pape bu fekkee tamit euh, da nga nekk ci élection collégiale mooy affaire députation ñu xam ne on cherche des députés fii c'est une relation un rapport entre benn nit góor wala jigéen face au peuple sénégalais c'est pas un groupe c'est quelqu'un qui est là ñeneen ñi jàppale ko man fu ma toll nii aujourd'hui c'est la deuxième fois que je j'envisage d'être candidat à la présidentielle j'ai l'habitude aussi sénégalais yi xam ne ko di jël toutes mes responsabilités ci lépp lu may def. ok bi bi nga bi nga bi nga bi nga c'est pas la première fois. mais nan la mujjee. dama considère que Sénégal laa jiital te su ma gisee suñu gisee ma daje koo xam ni wala ñeneen dans le cadre d'une coalition muy la man euh, bëgg naa ñu ànd yow tamit nga ne bëgg ñu ànd ngeen xool Sénégal rek fekkee intérêt Sénégal rek la ñuy jiital. war ñu di xëccoo di naan kii mooy jiite wala kii mu dul jiitu moo tax en 2012 recevoir nga ma fii en 2011. tout à fait vers novembre 2011. c'était le jour même où Kadhafi. tout à fait je voilà c'est ça. Mm-hmm. j'ai dû retirer ma parce que kii fi nekkoon ma ñu dajee ci coalition bi kan mooy jiite kan moo dul jiite. moi j'ai considéré moom moo ci gënoon jekk ma xam sama bopp lu ma gëm sama bopp xam sama bopp l'intérêt du Sénégal jarul tasaaro moo tax ñu nekk benn créé Macky 2012. c'était le président Macky Sall et yàlla jox ñu nguur gi. d'accord après nga am ci nomination ndombo tànk nekk ci directeur général. non am na étape bi nga tëb pour que sénégalais yi mën a comprendre dès que élection bi passé dama jël samay bagages dem liggéey ji. donc c'est deux ans kenn gisuma donc nekkuma woon di naan damay wuti ndombal tànk ak yooyu au contraire. le président de la république mi ngi seetaan je sais qu'il seetaan parce que xam na ni Moussa Diop mooy jàll jël na avion ñëw pare ne ma Sénégal moo la soxla noonu la ko waxee je vous le dis man j'ai pas l'habitude d'avoir deux langues donc ñëw ñu ñëw Sénégal nekk à la disposition du Sénégal mm-hmm. de question affaire ndombal tànk ndombal tànk fekkee ñeneen di dañuy si kontaan parce que nommé ni leen man c'est pas ça li lay xaar moo am solo ok da moo ma waroon laaj est-ce que li lay xaar je fais le minimum possible ou bien j'ai quand même euh, je je je ne euh, Sénégalais mën naa leen xool ci bët par rapport ma dénkoon parce que dénkaane la woon voilà. d'accord alors maître euh, noonu la mujjee da nga nekkoon candidat en 2012 nga jàpp ni Macky Sall moo la gën profil moo la gën programme nga ànd ak moom ndax jàpp nañu ni tey. en 2023 ñu jëm 2024 ci élection nekk nga candidat ndax mën nga gis keneen ku la gën programme gën la vision nga ànd ak moom. bien pour pourquoi ba ma def ko déjà je vous montrer l'exemple concret je l'ai fait. Mm-hmm. ak ñi ma mais mm-hmm. mais pourquoi pas. ko ma gisante koo xam ni wal ñu gis ñun. ñoo xam koo xam ni moo nu gën a jub programme gën si jekk gën a mën a jàllale affaire bi en tant que locomotive on on sera ensemble. d'accord mais loolu est-ce que du du jeu booy jouer donc jeu par exemple candidat la uniquement pour après nga négocier pour après nga bokk pour nga mën a cëru après. lenn moom xam naa ko loolu bari na fi. ah bon <laughs> non xam nga li may wax am. <laughs> d'accord bari na ci mais bokkoo ci. man souvent. bari na fi mais yow bokkoo ci. dama ne waaw bari na ñi may laaj di ma wax ni par exemple du man rek. man bokkuma ci ma moo ma gënal. Mhm. te d'ailleurs ma manière de faire la politique elle est atypique. jël na Sénégalais le ah. savent me le disent parce que sa nopp amul kubéer maa ngi déglu ñëpp. Mhm. su ma waree jël samay responsabilité je les prends du ma xool gauche ni droite damay xool l'intérêt du pays ma jël ko. soo fekkee ne jël nga ay exemple yoo xam ne mën nga ko teg sur la table que j'ai pas pris mes responsabilités ngeen di ko. mais man Sénégal moo ma ñor. bon d'accord mais da dama la dama la ni est-ce que nekkuloo di jouer ci loolu par exemple dama nekk candidat nga gis beneen waay boo xam ni jàpp nga ni daf la gën profil nga dem la ngaamu ci moom après ngeen dem ci coalition après ngeen gagné après nga bokkaat. ce que que j'ai la tête d'un joueur. daf la dama la mos a man damay je suis un farceur moom. bon maître. man li ma gis en 2012. yow yaa ma ko wax yaa di ma que man dama xeeb ñëpp quoi. non day ah, pas du tout ah si. day pas du nga gëm sa bopp rek. mais pas ñëpp. da nga gëm sa programme. j'ai bien li ma doon li ma doon xaar mooy nga ni ma non man Pape jàpp naa ni loolu naa ko mais léegi jeex na li may def gisuma fi ku ma a gën programme gisuma ko fi gën profil non damay nekk candidat damay gagné man. loolu laa doon xaar boo fekkee déglu nga dama gëm sa bopp baax na mais xam sa bopp aussi baax na bu fekkee ni dajee nañu waxtaan suñu biir trouver le meilleur profil. pour mu dire diriger cette coalition la pour pas pa y a des coalitions avec des entre avec d'autres coalitions ñu ngi waxtaan fu ñu toll nii ñu ngi waxtaan bu baax a baax lu wax ma benn coalition ñaar ñett ñu ngi waxtaan parce que ñu mën a ànd xamante nañu l'essentiel mooy nañu xool réew mi intérêt réew mi suñu intérêt boobu man loolu laa bëgg wax ñi mën a ànd xamante nañu mais mënuñu xalaat nga ànd ak Yewwi mënuñu xalaat nga ànd ak Benno oui mënuñu ko xalaat loolu pourquoi pourquoi pas Yewwi pourquoi pas Yewwi parce que xam naa am na foo teg waxtaan waxtaan bi parce que sénégalais yi tamit xam nañ ko mooy man j'ai une expérience si ñaari pôle liggéey naa avec le pouvoir ba jóge fa le 2 septembre 2020 li ma fa jógee xam nga ko duma ci duggagum pour le moment sa sama ko laajoon parce que sénégalais yi xam nañ ko deuxième chose mooy waa Yewwi ñëw nañ ma seet si c'est pas moi qui suis parti si ñoom ñoo ma seet si ñu waxtaan ne ma sa position bi nga am ci réew mi fu la dëgg fekk fa la lay bay ñëw la ñu ànd am na produit bu ñuy jaay ñu ànd ak ñoom nu mu mujjee tout le Sénégal c'est que jógewul ci man. ci législative yi la la la jóge. je suis dans le global quoi. non mais ci législative yi. dama ne euh, mooy mooy déclic bi. vous savez c'est c'est loolu moo officiel. waaw loolu moo officiel. loolu moo officiel mais lu am solo mooy ñu mënul ànd à un moment donné mënuñu tricher day day la le le le résultat aujourd'hui ñooñu nekkoon foofu di def li ngay wax ni ñooy reyante tey sur la scène publique man je suis là zen man lu dul dëgg du ma ci yàgg. li Sénégal sax donc l'histoire m'a donné raison yàlla jox na ma raison ñu ngi doon di reyante sur la scène publique voilà. pourquoi pas Benno. Benno euh, def naa fa sama preuves. je n'ai pas d'animosité aussi bien à Yewwi parce qu'on se parle. aussi bien à benn ak ñeneen. aujourd'hui ñun troisième voie la ñu ubbi. xam nga yow à un moment donné j'ai même dit defe naa ni ñëw na sa nopp bipolarisation de la vie politique lay xeex. crée troisième voie la majorité silencieuse. ñu ne pat majoritaire si réew mi à plus de pour cent au dernier baromètre mooy élection bi fi amoon législative jàpp seen bopp parce que gis ñu lu ñu leen doy. man ñoom lay waxal ñi nekk yeeyu je ne cherche même pas à puiser leur clientèle politique ñi nekk Benno pareil nous sommes dans une troisième voie et cette troisième voie là moom la ñuy proposer les Sénégalais. kon mais troisième voie boobu ñi ngi koy ñi ngi koy xëccool bari na de ñi koy ñi koy ñi koy réclamer ñi koy incarner troisième voie boobu bari na de. jàpp nga ni dina dina yomb ci yow. Hmm, man j'ai pas peur d'aucun adversaire. d'accord je n'ai pas peur aussi. Sénégal lañ nekk ah. ok dara lépp dana fi manqué safu wax. ku nekk dana ne man maa moom maa moom. mais le terrain est là. d'accord maître euh, maître wax nga ko nee nga élection présidentielle nit ki la ak askan bi. Mhm. du loolu nga wax ah.